merci merci à toi monsieur Grégoire jërëjëf merci euh, rak yu nuyu naa la boss nee mi ngi lay nuyu. Richard <laughs> fay naa la maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. di la <laughs> euh, boss bi nga tudd. Richard <laughs> bàyyi ma paase sama émission normal bul ma ko yàqal. Euh, donc maa ngi nuyu képp ku ñuy seetaan mhm. di nuyu waa Mauritanie bu baax a baax. di nuyu sama waa kër nuyu la yow tamit di nuyu waa télé bi. en tout cas ñu ngi lay siyaare bu baax a baax jox la sa waay euh, merci à toi Racky euh, enlève enlève enlève dindi ko waaw dindi ko ba mu set wecc ci sa gémmiñ euh, boos ak lay nuyu ngay ree bu la boos di nuyu la lay ree kiraa boos war naa nuyu rek Racky di ree ah? dama xam li nga si jublu ah nuyoo dama xam li nga si jublu boos dégg nga ko alors ñi ngi am mbégte bu baax a baax a baax gars yi nag moon nañu la dañ ma lay laaj chaque fois nii Racky nii Racky aujourd'hui Racky la fan nga nekkoon dañ la dàqoon wala maa la viré woon non maa la mise dans les trous. dans les trous quoi <laughs> <laughs> dans le bourrage. <laughs> j'étais mais euh, je suis de retour. donc euh, dañu leen di indil ay rubriques yu bees tàkk. Mm. ay actualités yu xew sur les réseaux sociaux on va en parler. Euh, aussi xam naa damay ñëw léegi ci coupe du monde bi. Mm. pour gagner du temps. Mm. Grégoire bu dee pare na mu won ñu yi. d'accord. en tout cas xale yi namoon nañu la lool dañ ma lay laaj ba sonn rek de retour donc euh, ci durant coupe du monde bi yëpp di ngeen ko am image par image Grégoire ñu mën a xam li xew ci coupe du monde bi récemment euh, li nga xam ni euh, jot na ci xew ñu xool yenn élément nga yor benn par benn et nous aussi on va ici débattre waxtaan ci bokk kook téléspectateurs yi toog seen kër di seetaan bokk na si cette image rek waaw image bi nii mooy euh, benn équipe Allemagne Allemagne la. équipe Allemagne si boppam waaw Allemagne la si boppam donc euh, dañu def nii seen gémmin taf ko parce que nee nañu xamuñu lan moo tax waa Qatar mise à pied euh, góor jigéen ñi. ok donc looloo waral seen signe bi nii. c'est l'image qui fait le tour du monde actuellement gis ngeen démb Allemagne Grégoire teel image bi s'il te plaît ne part pas Grégoire moom noonu la yàkkamtee Grégoire bàyyil bu ñu rek nga moom salaamaaleykum dem na. taxawal nga xoolal ñu suñu image bi lee ñàkk oh tey rek mooy catam dafa dafa dafa dafa yàkkamti dafa yàkkamti alors c'est l'image qui fait le tour du monde le tour du web l'image bi nga xam ni gis ngeen ko léegi-léegi euh, di euh, waa Allemagne yi nga xam ni démb bi ñu dugg ci euh, seen compétition seen début de compétition dañu jël seen gémmiñ ñoom ñëpp tax ko donc pour wane ni ñu mbégte ci li waa Qatar def comme quoi que ni ko rakk yi waxee dañuy boycotter li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum ngóor jigéen ak lesbienne ak lépp lu jëm ci xeet googu donc gis ngeen waa Allemagne bi ñu ko defee rakk yi après gis nañu suite bi dañu am défaite nguur yàlla moom képp koo xam ne da ngay xeex ak moom euh, gis nga ni yàllaa la ëpp doole. naka nga gisee bi la image. je trouve ça très normal parce que Qatar aussi pays islamique la comme li ñuy wax dañu dëkku diine la. Mm. donc am nañu yow am nañu seen droit. di naan ñii duñu dugg ci suñu dëkk wala lii du fi amee comme ce qui se passe en Mauritanie par exemple en Mauritanie on va pas on ne vend pas d'alcool donc euh, am nañ ci droit je trouve alors Mangok defe naa ni c'est l'image qui fait le tour du web Grégoire euh, si on peut euh, avoir beneen image bi jëm ci coupe du monde bi nga xam ni rakki indi na ko rakki ñi ñan la. waaw ñii nag suñu ay influenceurs lañu. xam nga boo xoolee image bi di nga ci gis euh, Virginie Faynara et euh, d'autres personnes dem nañu représenter suñu dëkk fale ca Qatar. <laughs> ñun sax bu ñu mënoon dem nee nañ dem Adamo mi ngi leen di yàq lu mel ne xebe non mais je trouve ça très <laughs> normal sincèrement ah. man su ma mënoon dem damay dem parce que neex na sa dëkk dem représenter euh, mondialement nga dem supporter ji et franchement c'est c'est magnifique. alors c'est les influenceurs du Sénégal comme on le dit ñoom ñooñu ñoo nekk euh, foofu ca Qatar ñu leen di ñaanal jàmm itam ya a Diaw Ketchup y a l'autre qui s'appelle Singom Dadji Ngam qui est mon ami euh, y a pas mal d'autres euh, yi nga xam ne ñoom Cheikh Cheikh Senghor ah ay euh, Cheikh Freestyle que je parlais tout, ouais. tout à l'heure je trouve que dajale na influenceurs yu bëree bëri donc ce qui est ce vraiment beau donc ñu ngi leen di ñaanal ñoom foofu ñu nekk yal nañ fa am tawfeex ba ci Fa Aydara et pas mal yi nga xam ni ca euh, Qatar di euh, dooleel gaynde yi wane seen bopp di publier leen yenn image yi ñun ñu mën cee jot en tout cas vous faites euh, vous faites un excellent boulot foofu nga xamante ni moom moo di ca Qatar yàlla bu ngeen nu jigéen di comme que loolu la ñuy wax naan ne premier match bi yéen la du yéen gaynde yi ñoo ne ci terrain bi yéen vous êtes les douzième gaynde mhm. et euh, tey honneur ngeen tey euh, euh, ñun bu ñu leen di gis dañuy kontaan parce que nag seen temps ngeen bàyyi seen ay yitte ngeen bàyyi dem mhm. ngir gaynde yi kon nag amuñu lu dul di leen encourager di leen féliciter davantage di leen ñaanal jàmm yéen ñooñu nga xamante ni yéen a ngi foofu ca Qatar sama xarit yi nuyu naa leen les influenceurs du Sénégal doxal leen ba kenn laa leen ku leen laa nag wax leen ma ñoo ñu fa nekkal jeex na image bi muy Mara yi réseaux sociaux yaa ngi toj. parce que Mara yi ku nekk yaa ngi def sa sortie yaa ngi ah. wax ñii ñoo ngi naan ndam du am ñii ñoo ngi naan ndam day am donc euh, soo xoolee ci image bi da ngay gis euh, Mara da ngay gis euh, Karamba et li bëri na daal sur les réseaux mais sant yàlla parce que vidéo yi ma mujjee seetaan yëpp maa ngi gis ni ñoom ñëpp ñoo ngi naan que ndam day am. donc mën nañ am yaakaar de plus. nañu nekk ci wirdi yi rek. ci sarax si Cheikh Ahmed defe naa la tudd ah. Euh, mooy ki ki moom nee na Mara Niass Karamba ñun ñëpp duñu waxkatu dëgg. <laughs> gis naa loolu mais ñëwuma ci xuus. vidéo boobu par kenn laay wax. Euh, euh, Cheikh Abel Cissé nee na moom Karamba moom Mara Niass ñoom ñëpp ñu ay waxkatu dëgg waxkatu dëgg xamalaa la man gaa mu ne Aliou Cissé la ak Zoré nañu football te gagné ñun ñëpp. lu ñu wax kat dëgg la mu wax dafa rëy ba mënu ma koo wax alors moom dañ koy gis à chaque fois day def ay sorti euh, Cheikh Ahmed Cissé doon benn mara boo xamante ni aussi euh, ñi ngi ko xamee ci réseau yi comme tout le monde moo fi amoon problème ak euh, Pawlish si je me trompe pas aujourd'hui tey boo ko gisee mu génn moom mm-hmm. wax ci bile match ni bu mm-hmm. gaynde yu génnee joué dinañ am ndam mm-hmm. loolu moom moom nga xam ni moom moo di Cheikh Ahmed Cissé yow naka boo ko gisee bon xam nga man li may wax tout le temps mooy ñi nekk ci terrain bi ñoo mën a def différence. Mm. donc ñun duñu wax duñ li ñuy nekkee mooy lu dul wax ak am espoir yaakaar. mais ñoom ñi ñoom ñi sol maillot yi nekk ci terrain bi ñoom ñoo ñu may ndam li mm. ñoom ñoo ñu mën a mouiller le maillot mm. kese. alors Karamba dama ko gis moom nee na foog <laughs> ñu yóbbu ko Qatar genre euh, sénégalais yëpp ñu ngi naan na dem Qatar na dem Qatar na dem Qatar est-ce que jotul aussi ñu yóbbu Karamba et euh, am na ay retour yu may am comme quoi que dafa joxe cinq 1 mais man gisuma vidéo bi mu ne Sénégal mooy dóor 5-1 bu dee moo ko wax yàlla na ko yàlla def bu dee waxu ko itam yàlla na ko yàlla def euh, donc Mara Niass itam nee na Sénégal day gagné si je me trompe pas parce que euh, damay romb ci TikTok bi comme tout le monde di xool yenn vidéo yi nga xam ne sëriñ si kenn mënu leen tey euh, mm-hmm. bañ a waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di émission yi parce que ils font le buzz sur la toile sur les réseaux mm-hmm. koo ci gis ku ne rek deuxième match bi alhamdulilah kenn waxu ci lu ñaaw démb dafa mer dafa mel ni mi ngi doon def live mi ngi mer mais Mara démb Mara nee na ku ñemee venez ici <laughs> Mara Niass nee na xaw ma nu mu ko waxee noonu nee ku ñeme joxe score waaw ku ñeme jëme score na ñëw ci live am waaw daf leen tëkku tëkku na ñëpp ñeme joxe score na nga génn ta am pour la parce que je trouve que deux sorties yi mu mujjoon def yëpp li mu waxoon am na muy blessé Sadio Mané bi xamu leen sëriñ bu yaru yéen ku xamu leen ku yaru <laughs> waaye <laughs> nga ni ko. non Mara Mara il faut il faut qu'on l'invite inchallah il faut qu'on l'invite mm-hmm. donc Mara Ndiass Karamba euh, il faut qu'on vous invite dans Onze Treize. Mm-hmm. donc yéen préparé wu leen. bu ma leen tegee nii yéen ñaar ngeen wax escorte surtout match Sénégal bu weesoo. ba ma jël sama téléphone bi Mara Ndiass aw ma numéro mais Karamba j'ai son numéro. dinaa woo Karamba téléphone dinaa ko invité. dinaa woo Mara Niass dinaa ko invité. wala bisu léegi ma message ba ni ma noo jox ma ma teg leen confrontation xam nga bisu ngoone yow Mara invité woon nga ko fi mu dem yoonam du <laughs> ñëwati sa plateau on stress day ñëw parce que man su ma ko invité au moins du ma fi teg keneen kon nag Mara Niass mhm. ak Karamba dans mhm. loolu ça sera quelque chose. non ça sera du lourd sincèrement parce que Mara Niass moom tàng. loo ñu indilaat ñu xool ak Grégoire. donc euh, nañ dem euh, ci beneen image bi donc ñii. Mhm. waa Japon la. Japon image bu day waar mi ngi nii xëcca. ok mooy match bi dafa jeex. Mhm. stade bi am ay euh, déchets ay affaires yu ñu doon utiliser. ndeysaan ñu jël seeni sachet ramasser lépp yóbbaale. looy wax nii. su leen neexoon ñu bàyyi ko foofu après ñeneen dinañ ñëw def seen liggéey. mais. geste bi dafa dafa noble geste noble la. ndeysaan donc euh, damay woo influenceurs yi ñi fa nekk waa Sénégal. ñoo leen di ñaax. Mm. ngir yàlla jaww ki itam daa daa defar néegam bay rama bay bay bay bay defar ay. stade jaww ki itam néegam sax defaru ko. nga daan ay da non non jaww defar néegam doo ma bàyyi yow. jaww day defar néegam yow jaww ki itam nga bëgg mu ramasser la mbalitu stade yow. non mais bu ñu naanee seen jus lekk seen i sandwich nañu ramasser rek ngir yàlla. si ngoom nga xam ni si ngoom. néegam du sax lalli lalli du sax. Euh, def leen différence non def leen différence cette fois-ci def leen différence ñu supporté di wax. non nañu supporté boo leen paree def leen ni waa Japon roy leen ci ñoom parce que lii geste bu noble la. Fa Aydara keroog la ma ne xëcaa baa xam nga ni mënuma fóot gis nga yi ngay wax nii de fay nara da xool ay loxoom xam ne mënul ramasser. bul wax loolu bul yàq suñuy influenceur Cheikh Senghor mii ngay wax. mondialement lañ dem bu leen indil ay problème xam nga bu ngeen moo tax moo tax ramassé wu ma man foowu ma de gis nga booy booy de man foowu ma man foowu ma dama leen wax li am. Ah. man dama am sama bon bu may defaral di ma raxasal di ma baleel. Ah. mais gis nga bu ngeen fa fooyee ba projet ma Sénégal ñu pare <laughs> yéen influenceurs yi ngeen di da ngeen jël ay poubelle di def ñii dañu tàmm di waa Japon dañu set fu ñu dem def eh, ah. est-ce que xam nga ba ci vestiaire yi. jour yi ñu paree dégg naa foofu yëpp lañ raxas. si effectivement noonu la demee. même ñun sur jour Sénégal yi dégg naa ñoom dañ doon raxas vestiaire. loolu wóoruma de. <laughs> loolu <laughs> wóoruma en tout cas en tout cas c'est l'image aussi qui fait le buzz naka nga gisee bile euh, li nga xam ni waa Japon def nañ ko aussi dem pare jouer match ba pare euh, defar seen ay affaire jël mbalit yeeg yooyu yóbbu ko loolu ça fait partie euh, ci li nga xam ni moom la ñu leen propreté j'espère effectivement seet dafa baax ci doomu aadama parce que boo seetee rek da ngay organiser wu ci sa vie comme yow boo xëyee nii xam nga doo lal sa lal da ngay perturbé xëcc fii t-shirt xëcc fii ah. tubéy sol daw dem sa liggéey boo ñëwaatee ah, yow yaa ngi lal salal boo yeewoo bien sûr ah. man damay lal sama lal kiraa dégg <laughs> waaw rek yeggaleel donc je trouve que geste bu ñu war a bu ñu war a topp topp toppandoo la ñuy wax noonu mm-hmm. geste bu ñu war a toppandoo la même euh, bi ma demee Chine c'était pareil aussi seen dëkk c'est propre doo gis dara luy traîner donc je trouve que war nañ def pareil Mm. c'est ça en tout cas euh, kon nañu ci euh, jëlee leçon ñun sénégalais yi mais influenceurs yi xam naa ku ci jug ni da ngay dem stade pour foli mbalit wala ni da ngay jëlee ay est-ce xam nga ni bu Sénégal gagné duñ ko tal. non <laughs> booy yi de booy ñeme nañ nag de xoolal si ngoom man surtout si ngoom si ngoom ñeme na match bi jeex mu ne day jël sase. barki alxuraan si moom dama ko maîtriser xam naa naan vidéo ma. <laughs> vidéo affaire bi lay def naan gars yi filmer leen ñu filmer leen ñu mais nag bu doon may yéen loolu ngeen di def loolu mooy bés bi gën a gaaw Sénégal pare nañ dóor nañ ko dóor yàlla bu ñu dóor gañe naa gañe wuñu ngeen jël ay mbuus def ci sa tey mm. ba pare dem ci biir vestiaire yi raxas ko ñu xam ne ñun suñu image fii rafet na waaye du doon lu dëgg ci ñun parce que melu nu noonu wax dëgg yàlla defaruñu ay néeg fa ay dara defarul néegam fay naraa defarul néegam Cheikh Senghor ak kum ci mënti doon nekk xam na ni defaru leen kon bu leen dugg sax ci yooyu voilà xëy na peut-être supporter douzième gaynde yi ak waa Ale Casa mhm. ak euh, ñi nga xam ne dégg naa waa lébu gi dañ dem lébu gi ñi ngi ngi ci coupe du monde bi ah dégg naa lébu gee nga fa de bu dee ñu ngi fa ñoom it mën nañ koo defar mais xam nga ñun Sénégal ñun dañoo yor suñu ay arsenal parce que ah. boo leen xoolee keroog ni ñu doon supporter rek nga mhm. xam ni fii macha allah mhm. affaire bi dafa am ay charge donc ramasser foofu dafay xaw a jafe tuuti alors naka nga gisee suba match bi ñu war a am incha allah Sénégal Qatar. bon dañuy dañuy. defe naa Grégoire sa image yi jeex na lii la woon. image jeex na d'accord dañuy ñaan yàlla mu may ñu ndam. e suñu coach Aliou Cissé ñu ñaanal ko aussi jàmm ak salaam di ko ñaan rek mu xoolaat classement bi parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux ñëpp ñoo ngi ci doon wax ci les gens réclamaient trop Iliman Ndiaye et. Euh, ñeneen ak ñeneen donc euh, na si bàyyi xel bu baax a baax loolu rek ñu ñaanal leen jàmm. jàmm ak loolu rek voilà ki nee na rakki nekkoon nank rek tey rek ñu kaa leen waaye ñun dañuy kaa rek man ak yow dañuy wax dañuy génn rakki te ngaa wax ñi génnuñu moo gën. ah moo tax ngay nëbb suñu diggante. <laughs> rakki nag nag nag xamala la moom bu ma damaa ragal ay coow ak ay wax wax ñi génnuñu. surtout waa kaa am na fooy toll nëbbatu bi da koo jarul ah. ah ñu wax dëgg mais Kira ma loo loo koy nëbbee on est ensemble. <laughs> assume. xooloon na bu quoi na bu quoi mais kon kon ba ngeen ko xam wax nañ leen ko. <laughs> merci quand même war a dugg léegi léegi ci benn affaire ma bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi et on se donne rendez-vous incha allah rabbi euh, semaine euh, bii di ñëw euh, ñu xam Sénégal demee la war a fubal naka la war a demee lan mooy sa pronostic ci match bi. donc comme ni ma wax léegi rek ndam. nañ hmm. ñaan ndam hmm. et ñu dem. gagné coupe bi indiwaat ko incha allah parce que football xaw ci lu bëri te damay bañ a déraper. jour hmm, sénégalais am nga ko ci xam. oui am naa ñu ma ci xam. macha maa ngi maa ngi fait euh, def un gros bisou à mon père. qui <laughs> bi. sa papa waaw sama papa il regarde tout le temps l'émission. ndeysaan dafa bëgg a xam Grégoire. parce que eh, lui aussi eh. réclame Grégoire. Eh. donc euh, maa ngi koy def un <laughs> maam. toute yeah. la famille, maman Salka, Kira. Gros bisous. Aïcha merci beaucoup à Kira merci beaucoup à Raki merci beaucoup à Ndela merci beaucoup à l'international Lamp merci beaucoup à Boss su ma limee rek xam ngeen ni ay c'est ba ngoog kon nag day leer bu <laughs> dem xool ka dama mën a merci beaucoup à vous amis chers téléspectateurs on espère bien que demain le Sénégal remportera ce match inchallah rabi contre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les Qataris inchallah yal nañu yàlla may ndam na ku fu waay mën a toog ni amin mën na ko yal na ko suñu borom def bu taxawaat bii di ñëw yàlla bu nu sunu noon yi ree muy gérégowaat ak ku mu mën a doon kon nag yàlla yàlla may nu ndam incha allahu rabi maa ngi leen di jox sama score ci nu yàlla jàpp leen lii ndax Sénégal mm, lii la nar a dugal ah bàyyi ma joxe rek ah maa ngi joxeet kon ma bañ a joxe gars yàlla nañ gañe rek baa leen ma yem foofu à demain incha allah